فلاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله bëgg na liggéeyal dëkkam. président de la république euh, ànd na ci nga proposé ko comme ça mu jàppale la. kon ni nga ko waxee noonu la cortège baa ngi noonu. di dugg président nga noonu di waaj a euh, wàcc nga sécurité bi. ñu gis noonu président di waaj a euh, wàcc jëm nag ca kilifa gi li ci des bëriwul. mu àgg safonte ak ki nga xamante ni rek moom mooy kilifa. fii tamit. Mhm. dinañ fi xaar waxtaan bu am solo. mu jógee ci président de la république. jëm nag ci waa Medina Baye gépp jaare la ko nag ca xalif ba uh-huh. ah, dèjà xalif bi moom euh, ku nekk xam na ne que sëñ Baye Baye Baye Baye Niass nekk na ko nga xamante ne rek ku bëgg liggéey la ku bëgg liggéeyal dëkk ba la donc euh, président ndar na ko ci fekk si bu baax a baax alors président dafa mel ni oto moo ngi nii di mm-hmm. gaare mm-hmm. xam naa rek lu yàgg tuut léegi dina génn premier ministre ñëw na ko teeru ko voilà mi ngi premier ministre Amadou Ba ak le président Macky Sall ak euh, dignitaire religieux yi nekk Kaolack tamit ñom tamit ñew nañu teeru sen gan bi nga xamantene moy président Macky Sall comme nim koy defee at bu nek rek di dem ziyara famille religieuse yi ñi ci waajal gamu gi mi ngi nii nag ci Medina Baye Omar, gis nga image yi président Macky Sall yegg na Medina Baye Umar Diaw tout à fait il y a yegg si na Medina l'accueil. gouverneur ils sont dans leur tenue de cérémonie les membres de l'administration territoriale. Mhm. donc ce sont des tenues blanches qui sont réservées spécialement à certaines très grandes cérémonies. président bi comme tu dis les dignitaires religieux. waaw directeur général bu Sénélec moom tamit doomu Kaolack il est de Kaolack donc euh, tout naturellement ñëwoon gan Terre aussi, ganam bi nga xamante moy président Macky Sall waa Kaolak, nag famille Niassène mi ñoom ñëpp génn nañu pour Terre aussi, seen président Macky Sall mooy ganu dëkk bi nga xamante ne Medina Baye. di jamono ji ñu waajal euh, guddi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam Medina baay tamit fas yéene dalal ay nit yu bëri bëri bëri bàyyi ko nag fu nekk si àdduna wërngal këpp. Mm-hmm. loolu tamit euh, comme ni koy Tiwaawan di defee Ndiassane di koy defee euh, Thiénaba ak Touba ak këru diine gépp Medina Baye aussi noonu la koy defee moo tax njiitu réew mi tamit ñëw xool ndax ña nga xamante ni yabaloon na leen euh, ngir nag ñu matal la. Euh, voilà président Macky ak euh, Serigne Mahi Niass. mi ngi noonu. mi ngi teeru ganam. macha allah seen Abdoulaye Daouda Diallo. président Macky nag yegsi na dafa mel ni dugg na ci salle bi. di nuyoo ak ganam. mbooloo mi président yegg si na yegg si na ci xalifa bi mi ngi toog ci wetu xalifa bi di kenn ci noonu dañ nay ak délégation bi maa ngi yëpp na ñëpp toogal donc euh, dafa mel ni euh, président Macky Sall yegsi na léegi ñoom ñëpp nag toog nañu ganam euh, ki nga xamante ne la seet si mooy Cheikh Mouhamadou may Niass teeru na ko jël nañu léegi xam naa bu yàggul dara rek waxtaan bi dina war a mën a tàmbali ajoot xama booy bu yàgg waxtaan bi tàmbali gis nañu directeur cabinet politique bu président mhm. di Augustin Tine Tine ak mbay Ndiaye ministre d'État Mansour Faye di jawriñ bu ñu dénk lu dem ak dikk bi ministre eh. mhm. de la jeunesse jawriñu ndaw ñi ba Malick Ndour ak ministre de l'eau de moom nag am na solo de moom xam naa moom eh. <laughs> moom nag jiitu woon na fa sax moom ñoom ñaar <laughs> àndoon nañ fa dem xool problème assainissement yemoon foofu donc eh, gis nañ président Macky Sall nii mi ngi waxtaan ak ki nga xamante ne mooy xalif bu Medina Baye Cheikh Mouhamadou Maye moom la ñëw seet si tey comme nim mu koy defee at bu nekk bu ñuy jëm ci gàmmu gi nga xamante ne suba lañ koy célébrer Omar gis nga président Macky Sall yegg si na daanaka je pense que du yàggatul dara dinañu commencer seen ay waxtaan. waaw loolu loolu moo am ah euh, président fi mu ne nii mu ngi toog ak xalif bi. Mhm. donc euh, di waxtaan bon xalif bi aussi ay mbokkam ak i ay taalibe ak ay conseillers am daal di toog mais vraiment waa kër gi ñoo toog recevoir président Mohamed en délégation bu à coup, lim ci ministre donc il euh, xam ci ministre de l'eau bi ko appuyé <laughs> la question de l'eau est une question extrêmement importante eau et assainissement quand on connaît un peu que... Alors déjà, pendant très longtemps, les forages étaient fluorés, mhm. c'est-à-dire que dafa fluor qui dormait. bi mhm. euh, parfois ça peut atteindre euh, les dents et les colorer donc euh, donc faire fer avec fluor donc on a créé des stations de déferrugination pour enlever le, fluor et enlever le fer donc mhm. mais il y waxtaan bi ah, waxtaan bi naa dañuy dem fële ci Kaolack rek fekk fa sunu équipe yi fa nekk ñu mën a déglu waxtaan bi nga xamante ne président Macky Sall dina ko amal foofu ak xalifu Medina Baye ñi koy dalal tey. nga am gan gu mag gan goo xam ne adduna yëpp xam nañ cofeelam ci yow waaye àdduna yëpp xam nañ sa cofeel ci moom it gan goog tey. ñëw ne dafay ñëw ci yow pour ndokkeel la ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. monsieur le président ñi ngi lay dalal ci sa dëkk sa dëkk soppe ñi tijji ay aaya alquran ba pare suñu pare ñi doog a continuer jataay bi wax ñi nga xam ne nii ñi ngi teew fii ànd ak sëriñ bi. pour teerul ko ganam gu màgg gi dañuy jox cheikh Mouhamadul Hamid ni cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim nias mo am ay aya alquran yu mu jàng kon nak cheikh Hamid bismillah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 لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا يكفر عنا سيئا ربكم فآمنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جرجف شيخ حامد يلا يلا guddal sa fan monsieur le président ci ndigalu sëriñ bi programme bi ni nga xam ne moo koy tërale ginnaaw bi nga xam ne nii mune ben way ne ko khadimul umma mune ko Cheikh Ibrahim momo ma khadimul umma waaye deug deug khadimul umma nafa allahu bikal umma nafa allahu bikal umma kon nak mu ngoog yalla yàlla jëriñ xeet wi ci yaw kon xeet wo ñi ngi jëriñu ci yaw yàlla nga fi yag lol ta ànd ak wér dañuy jox Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé porte-parole mu wax la sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo ñëw fii tey teeru sul ko ganam gu màgg gi su paree dañuy jox président kàddu gi su paree dañuy jox xalifa bi kàddu gi su paree nag ñi may président ak xalifa bi ak képp koo xam ne xalifa bi bugg na mu bokk ak moom jataay boobu ñu dugg ci biir sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax monsieur le président boo teewee duñ présenté sëriñ Mahi parce que yow yaa ñu ko gën a xam dañoo toog man ak doomam Cheikh Hamid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 سيدنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة وعلى آله وصحابته ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Monsieur le Président Hadji Macky Sall ñu ngi lay nuyu ci turi sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma xalifa saaxibil faydati waaye moom moo tànn xaadimul umma ndax dëggal li ko bàyyi wax ne ko yal yàlla jëriñ umma bi ci yow ñu ngi lay tatagal ci sa kër ci sa biiri soppe tatagal boo xam ne xol yi ñoo ko njëkk def ñoo la njëkk a dalal barab yi door laa dalal khalifa bi bu toogee ay rakkam yépp ñu ngi ñëw nii toog ak ay doom yi bàyyi taxam cheikh mohamad al aqibu cheikh mohamad al makki yi nga xam ne la ci bunt bi cheikh al mahdi cheikh abdul malik cheikh mohamad al shafi seydi cheikh seydi ali ibni cheikh sëriñ mbay seydi bachir ibni haaj mohamad zeynab axuhu seydi al arabi haaj abdullahi Cheikh Ibrahim Diallo uh, président Ansaruddin mu dir ma Hay Abdullahi muy uh, Cheikh na nga ñëw ci barab boo xam ne bëgg nga ko waaye ñoom tim bëgg nañ la nga ñëw tim ziyaare si kilifa goo xam ne fonk nga ko waaye moom tim ku la fonk la te fonkeel gim la fonk du ngir ay intere boppam waaye ngir bëgg gim bëgg réewam di dox ci àddina di jàngat ci àddina nekk nit koo xam ne dafa jàng taarix histoire waaye jàng lislaam nekk ak koo xam ne muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu nga xam ne àddina bi yépp ñi ngi jumoo si ci moom muy doomam waaye mu yar ko bàyyi ko xel teg ko ci yoon wi nga xam ne ci la teg ay magam ngir préparer ko ndax xamoon na ne bés bii dana ñëw kooku moom nga toog ak tey jii tey muy koo xam ne askan bi lay waxal wàccee ku nekk sa wàccuwaay xam na ne président de la république en bi ko yàlla teg nga xam ne ñi xamut dañuy foog ne teraanga rek la mais ñi xam xam nañ ne responsabilité bu diis la nit nag doo ko en sa responsabilité ba pare di ko fakkatal moom xale yi jéemantu sax daf leen di ñemeloo waaye rawatina nit ku dem jaar ci jaaruwaay bi nga jaar jàng ba nga waree jàng jaar ci post yi nga war a jaar ba nekk ku ñor ba tée réew mi nekk koo xam ne tim kër diine yépp gis nañ seen bopp ci yow ba koo jëflanteeg rek mu foog ne yow rek yaay xaritam dafa am kuñ waxoon mu wax li mondialisation nan la nan lay nan la mel mu ne dafa mel ni li Aristote waxoon biñ ko waxee xam-xam nu mel mu ne nit ñi buñ leen waxee ci xam-xam ku nekk lim xam ci xam-xam lay jàpp na mooy xam-xam ndax dafa mel ni nag bu ñuul kukku ñi teg ko ci lëndëm wax nit ñi ne laal leen nag bi ñi jot béjjën bi dañoo foog ne béjjën mooy nag ñi jot tànk bi ne tànk mooy nag ñi jot doq gi noonu ñi jot geen gi noonu noonu la mel yow nag mun nañ wax ne Sénégal gis nañ seen bopp ci waaye kër diine yi gis nañ seen bopp ci yow sëriñ bi lim la fonk fonk président xam nga ko mas te dëñ di la wax lépp loo xam ne nii moom mooy njëriñal askan bi di ngay diisoog moom def ko bàyyi def ko kilifa mu mat la ko bu agsee ci wax dëgg mu wax la ko bu agsee ci laaya biir mu laayale biir nga nangul ko ko ndax audience ñu mujj am ak yow te moo ñi ñaan ñi ñëw uutu ko ci loolu pour dajeeg union islamique bi nga xam ne bàyyi ko sosoon mu dekkal ko pour àddina yépp uy siyaat ci loolu ba ma ñëwee dama la wax wax joo xam ne ci moom la tukkee dama ne la sëriñ bi mu ngi lay ñaanal mu ngi lay ñaanal mu dolli la fit waaye mu ngi lay ñaanal mu dolli la sagesse ndax ñun xam nañ àddina bi li fiy xew ak yëngatu yi yàq àddina yépp xam nañ ko te boobu waxagoo ne yow duróoloo candidat ma ne la sëriñ baa ngi lay wax ne la xam nañ ne sa xikma sa ñor sa dal moo tax senegaal ba léegi paasewut fi mu nekk loolu dañuy sant yàlla biñ lay àggalee yoon yónnenti boobu ñi gis senegaal dalaat dal boo xam ne kenn foogu ko kenn foogu ko loolu dafay wane ne loolu mu ci yow audience boobu bokk na ci yóbbante sëriñ bi mu ne la maane la cadeau bi gën a rëy tey président boo yónnee sëriñ bi ci audience bi mooy jàmmi Sénégal ji te loolu sàmm nga ko dëgg-dëgg sàmm bu mat sëkk kon ñi ngi lay tatagal mais ñi ngi lay ndokkeel ñi ngi lay ndokkeel nag ci pays Cheikh Ibrahima radiallahu anhu bi nga xam ne doy na la nga dagg àll yi ñëw fi ndax moom moo julli ci yontu bi sallallahu alayhi wa wax ne yow yàlla ci barke julli gii ma julli ci yonent bi képp koo xam ne dagg na àll yi ba ñëw ci man nanga ko tànn yow nag du ne dangaa dagg àll yi rek ñëw waaye dangaa fekk sëriñ bi ci lépp lum sémbu ndax barki démbu esplanade bii nga xam ne ci lañuy gàmmoo bam àndee ak uh, Baye Ciss ñëw ci yow taxawaay bi nga ci taxaw réerut kenn ci àddina te mënoon ngaa wax ne sëriñ bi mën na koo def taalibe yi mën nañ koo def waaye dafa am lu muy jàngale moom ndax baayam bi mu sosee jumaa ji nee na am na kilifa gu ko wax ne ko mën naa koo def man kenn mu ne dama bëgg jaam yi def ci seeni loxo koo xam ne nag wér na la ne bu leen nit defalee defal na àddina yépp koo xam ne bu la ñaanalee tey fii ba Jakarta fii ba Amérique fii ba Makka fii ba Medina Munawara ñëpp a ngi wax amin te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al mu'minu ahadu daayini kiy wax amin ak kiy ñaan kenn ci way ñaan yi la loolu rek jar na ñëw fii tatagal bi ñu lay tatagal yaa ko moom ndax kum neex nga dem nelaw yi doxi sa soxla yi waaye yow am na amuloo droit nelaw waxtu wala neexee amuloo droit dox sa soxla yi waxtu wala neexee dafa am benn boroom xam-xam bu ñu laaj ne ko boo amoon benn ñaan rek booy ñaan kenn nga koy ñaanal mu ne dama koy ñaanal suma buuri réew mi nga xam ne nii bu muccee ñëpp mucc kooku ñaanalul buur bi boppam lay ñaanal ndax nga dugg ci oto di ñaanal chauffeur bi mu danga da koo def yow pour yaa bëgg a mucc kon ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu sa gouvernement premier ministre ministre de ak ministre yi nga ànd ak yëpp di nuyu euh, waa kër gi yëpp Serigne Mbaye Thiam mu ngi fi doom la ci kër gi di nuyu Pape euh, Ndour waaye ñu ngi lay xamal say doom yi nga xam ne doomi Serigne bi lañ mais nekk ak yow nekk ci région bi nekk ci kër gi gannaaw bu ñu ñëwee gouverneur ak préfet waaye Pape demb bi tey mënuñ koo ñàkk nuyu ndax barab gàmmukaay bi nga doon laajte léegi boo demee danga gis làmp yi fa nekk ak ci dëkk bi yëpp waaye di nuyu Modou Ndiaye Rahma di nuyu euh, sëti sëriñ bi muy euh, ambassadeur sëriñ Aliou Dem buggu ñëw guddal dañuy delloo wax ji sëriñ bi mu euh, tatagal la tatagal dëkk bi yëpp a ngi lay tatagal xool yëpp a ngi lay tatagal mais mu ñaanal la ñaan goo xam ne ni incha allah addina bi yëpp ñi ngi koy ñi ngi wax amin ci loolu te lim lay ñaanal lim lay ñaanal euh, ñu ngi may junju euh, Mariama euh, Sarr ak Seydi Siraju Diin ñoom ñëpp ñu ngi fi dëkk bi yëpp ñu ngi fi ñu ngi nuyu ñëpp ci turi sëriñ bi ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ni ñi jagleel nuyoo ñi nga xam ne bi ñuy wax tudduñ leen yàlla nangul gàmmu gi yàlla def ko muy gàmm goo xam ne hiwam dana dellu ci Sénégal yëpp waaye dana dellu ci njiit yi nga xam ne ni ñoom lañ óolu ba dénk leen suñu réew ba nga xam ne ni fekk ñi ngi fi jàmm ngi am ci réew mi yoon yi nga xam ne tim moom lañ tëraloon ci lu baax pour bugg koo defal Sénégal muy continuité yàlla maye loolu mën a am ba Sénégal continuer jàmm ji nga xam ne ci la nekkoon hiw gi nga xam ne nii ci la nekkoon muy Sénégal boo xam ne bu développé la ci wàlli jàng ci wàlli wér ci wàlli démocratie ci wàlli liberté ci wàlli mbooleem xiwi àddina ak la àlaxira te maa ngi lay wax ne président am na jëmm yoo doon gis te gisuloon gisuloo leen fii bu sëriñ bi teewee teew nañ waaye dañ lay xamal ne seen ngant moo leen teree teew waaye ñu ngi teew ak ñun muy cheikh Mouhamadul Amin ak imam cheikh Tidiane Cissé ñoom it ñi nga fañ nekk di wax amin ci ñaani sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Euh, jërëjëf jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mahi euh, sëriñ bi dañ ma bindal ñenn ci délégation bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak président di ci jiital monsieur premier ministre Amadou Ba bi nga xam ne bari barki bu ñëw na fi bi mu fi ñëwee indil la yóbbante président de la république ne la président lii ak lii ak lii la ma yónni waaye man maa la wax ne la lii bokkut ci yónnantu ma bugg nga ñaanal président

directeur cabinet du président mu ngi ànd ak timit ci délégation boobu ba léegi mbay Ndiaye ministre d'État mi ngi ànd ak ci délégation boobu Mansour fay ministre du transport mi ngi ànd ak ci délégation boobu Mariama Sarr mi ngi ànd ak ci delegation boobu Pape Malick Ndour bi nga xam ne nii sa doom la heure bu nekk bu fi ñëwee rek yóbbante président la lay wax te mu bokk ci njaboot gi tey mu ngi ànd ak moom mu ngi ànd ak Yoro Dia mi nga xam ne moom mooy coordinateur communication présidence mu ngi ànd ak ministre Matar Ba di chef di cabinet di président mu ngi ànd ak monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne bi weeri gàmmu gi teroo ba léegi mi ngi fii soo koy wax sax daf lay wax bul ma gërëm man fii sama kër te lii lañuy président digal képp kuy gërëm na nga gërëm président mi ngi ànd ak euh, Ousmane Kane gouverneur de la région Mingi ngi ànd ak Diouf DG DG Francis mingi andak ah ak ah, mi ak Mor Ngom ministre conseil mingi ngi ak Mor Ngom ministre conseil euh, mingi ngi ak monsieur Ousmane kan gouverneur de la région mingi ngi ànd ak Diouf DG Francis mingi ngi ak Cheikh Tidiane préfet mingi ngi Mohamed Ndiaye Rahma ministre conseil de sa dom kooku président كن دوكو بريزانتي في يو خمغا رحمة أك كاولا خمغا كاولا أك رحمة خمغا رحمة أك خليفة بي خمغا خليفة بي أك رحمة ميغي أندك موم ميغي أندك باب مدام ببيتي دريكتر سنرك بيغا خمني لدون شيخ ماحي ميدي وقتي موم bu sëriñ bi jëloon ak kenn ku nekk ci dëkk bi mën nañ koo wax ci moom mu wutu la ci côté yu bari nag di góorgóorlu ci pee bii nii mu ngi ànd ak awa gay mi ngi ànd ma Macoumba Diouf mi ngi ànd ak Alioune Cissé Dem ambassadeur mi ngi ànd ak Ousmane Diouf directeur kurus nga xam ne nii moom tamit avant euh, premier ministre di ñëw fii chaque jour mu ñëw chaque jour mu ñëw mi ngi ànd ak tamit sa doom Abdoulaye Muntaka di sa doom di conseil président mu ngi fii teew te barki démb ba léegi mi ngi coordonné lu mel nii mu ngi ànd ak tamit monsieur Habib Ndaw di DG mom timit nga ñaanal ko yalla ak maire yi nga xamne ñi ngi nekk ci commune bi yépp ak ci département bi yépp ñi ngi and ak mom ñu nekk ci département bi yépp ñi ngi and ak mom ak mi ngi and ak euh Seyda Mbodja Niass mu ngi tew fi ñom ñep délégation bi sëriñ bi président lañ andal di sa njabot ñu né président da ngay dem ci sunu kilifa dañuy and ak yow ci sunu kilifa kon kaddu yoy ñi ngi lay dalal ci sa kër sa kër go xamne kër go xam la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 سيدنا مولانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم سما خليف سنو خليف سنو ويجور سنو خريط شيخ محمد الماهي إبراهيم نياس مانجلي نيو نيو بمتبه سما خلن di la nuyu ci turu Sénégal yëpp di la nuyu ci turu délégation bi ànd ak man nuyo boobu nuyoo la bu jëm ci njabootu Cheikh al Islam teg ko sa loxo yu tàddi ngir nga jottalil ko njaboot gi yëpp ñu ngi ñëw di la ndokkeel ci bés bi ñuy dëgmal muy guddi mawlud mi màggal juddoo ngën di mbindeef Kaolack nag rawatina Medina bàyyi am ci wàll wu rëy wàll woo xam ne kenn liggéeyu ko ku dul cheikh al islam mawlana cheikh al islam alhaji ibrahima Niass nu yàlla yokk leeram Euh, mu sanc pays bi yoo xam ne tey foyer lumineux la ci islam mondial kon sëñ maa yi maa ngi lay nuyu di nuyu say rakk yi fi nekk ak ñaam ngant suñ Mamadou Baba Lamine ak suñu xarit sëñ Cheikh Tidiane Cissé di nuyu Serigne Akhibou Niass ak sama turandoo sëriñ Makki Niass di nuyu Serigne Madi Serigne Madi Niass Serigne Safiou moom it euh, maa ngi nuyu nuyu porte parole xarit Serigne Cheikh may Cissé ak mboolem njabootu Mawlana Cheikh al Islam bi fi teew te ngeen tuddu leen léegi. di nuyu tam responsable politique yi fi nekk ginnaaw bu ma nuyoo gouverneur préfet bu Kaolack ak ministre yu région bi te ñu tudd leen léegi may nuyu également responsable politique yi kenn ku nekk si ñoom ci turam ak santam maa ngi am mbégte sëriñ bi ci la fekkaat fii tey ci Medina Baye ngir ndokkale la ci mawlud bi ñu dëgmal xam it ne ñëw naa fu ma yàgg ñëw ndax bi may jàng fii ci lycée Gaston Berger boobook léegi am na ñeent fukki at ak ñett booba laa xam Medina Baye doon fi ñëw doon fi julli si fi gàmmu si

ku dox jamm nga fii ba Soudan ci luma xam nga def bu am solo si jamm ñëwaat ci réew moomu Soudan du Sud ak Soudan nga koy dox ba ci Niger bi barki dem ñu ci ciy waxtaan nga yëkkati sa di woote ngir jàmm am te pare woon naa it pour nga dem loolu yëpp ndax ñu am jàmm circonstances yi moo tax ba léegi mission bobu doxuloo ak yenen ak yenen yu nit ñi xam ak yu ñu xamul ci lepp pour jamm di am ci aduna bi waxatuma la ci biir Sénégal kat nga borom xam-xam nga ku bax nga khalif bi dana yalla yok sa taxaway yokk jamm jàmm wër ak kattan

loolu lu am am solo la te mën naa ko sedd si yow maa ngi am mbégte it ci liggéey bi nga xam ne suñu xarit Baye Cissé ci sa ndigal tàmbali na ko euh, muy esplanade bi waaye projet bi gën na yaatu loolu kon damay ñaan gouvernement bi tam ñu bàyyi xel Medina bàyyi ci développement gox bi ndax goxu cosaan la goxu diine la gox la buy recevoir àdduna bi yëpp fii boo fi ñëwee di nga fi dégg anglais di nga fi dégg asania maa ngi nuyu naan ko as naat <laughs> maa ngi koy nuyu di ko ziar euh, moom sama frère euh, fii boo fi ñëwee di nga fi dégg awsa di nga fi dégg làkk bu nekk ci àdduna bi parce que mooy wane dayo Medina mooy wone itam tolluwaayu liggéeyu cheikh l'islam ci rew yëpp ding fi deg ding fi gis tchadien ding fi gis nigérian ding fi gis nigérien ding fi gis mauritanien ding fi gis américain yu bare bare bare ñew tu nek ay julit di dund ak yéen fi ding fi gis civilisation africaine boo gisee mbaxane yi tey xam naa xale bi moom dama koy tooñ léeg rek dama ñemewul xuus waaye moom rek laa gis deful façon boobu tax moom foog naa yoruba yi la xaw ma yoruba yi <laughs> moom den bos la jël mais dafay wone l'apport dans la civilisation islamique bu Medina Baye andi ci Sénégal waaw ba tax léegi même ñoom Ablaye Daouda sax léegi gis nga mbaxane yooyu la ñu jël donc loolu dafa am solo vraiment may am mbégte lool lool ñëw tey di la ziara di la wax itam ah, ci kàttanu suñu borom fas yéene naa ginnaaw élection yi di ñëw tàggatoog waa réew mi dama xam nag yow say ñaan ak say xalaat yu rafet ak sa yéene ci jàmmu Sénégal xam ne vraiment mbégte laa koy defee sewet di le sàkku ñaanit ñeel senegal ndax jàmm ji gën a yaatu stabilité bi gën a yaatu ndax ci loolu la lépp xej ñu bëggee ndaw ñi am liggéey ci loolu la jàmm ak salaam la ñu mën a amee liggéey ak dal suñu bëggee réew mi jëm kanam développement bi gën a yaatu am na lu ñu tàmbali gis si jàmm ak salaam ak dal lañ ko mën a defee te it rafetlu naa say kàddu chaque fois que bu nit ñi gëlëmee nga gindi leen wan leen yoon te njiit loolu lañ koy doyee mooy bu xel yi lëndee nga wane yoon wax li yàlla wax fàttali ko en tant que kilifa ñu ngi la si sant bu baax am naa mbégte tam moment où maa ngi waaj a dem ne en tant que njiitu rew ma njëkk a jël kilifa diine toll Cheikh al Islam tudde ko université bo xamné ne c'est une université publique moy USSEN université du Sine Saloum Cheikh El Hadji Ibrahima Niass ndax Sénégal ci ni xel yi doon depuis colonisation lolu ànduloon ak gis-gisu réew mi

kon ku jàng ci langue français bu ñu jàppee ne yow rek yaa am xam-xam ñu ngi jum moo tax ba ci statistiques yi ñuy def ci wàllu indice de développement humain dañuy jum parce que képp ku jàngul français dañuy jàpp ne analphabète nga te analphabète mooy ku xamul alphabet alphabet tubaab nag latin mooy ABCD waaye bu arab nag mooy alif ak du ma si sore nag parce que ma sama àlluwa sorewul surtout fii ci Medina Baye du ma dugg ci gàm boobu xaw ma nag alphabet arabe bi naka la waaye daal léeg-léeg yi naan basin mi mara ak yooyu mais bon mën naa ko leb <laughs> kon ñi jàng alxuraan mënuñ leen considérer comme ku jàngul loolu jaaduwul maa ngi laaj léegi sëriñ bi amit fu mu jàng mu ne ma fii ci Seyda Mariama fii la jàngee totalement bu bu bu taxawee liir alxuraan nga foog ne ku ku def doctorat à l'azar la te loolu mu ngi ci biir réew mi te bëri na moo tax ma décidé ne il faut que éducation nationale ak gouvernement bi ñuy financer léegi daara yi dañ koy defee ci école publique yi ren ñu tàmbali ci jël enveloppe juróom-benn milliard pour tasaare ko si daara yi moo tax daara ñu bëgg sous l'autorité des gouverneurs et des préfets ñu am un recensement

bëgg nee nañu am na waaye gën a bëgg am na kon ñooñu ànd ak man ma leen di sant di leen gërëm rawatina waa Kaolack yi mun naa si lim rek tuuti avec le risque nag du fàtte waaye boo fàttee waa ji ne gis nga président bi ñëpp toogee daf ma tëb damay bàyyi comme loolu nar na si am ma ma bañ a lim kenn waaye xam ngeen ne yéen ñëpp maa leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax kon ñoom ñooñu sëriñ bi laa bëgg vraiment dënk ñoom it ñu góor góorlu nekk benn ku ne fàtte sa bopp te xool réew mi xool président ku nekk fàtte sa bopp ànd joxante loxo ngir fii ñu jëm Sénégal mën koo dépasser parce que man li li si doon sama wareef def naa ko pour Sénégal jàll si jàmm li ci des nag mooy ñu góorgóorlu ba fexe jàppale port bi nga xam ne boo leen leen jàppale xam ngeen ne yoon bii duñ ko wàcc te dugg ci ay yeneen waaw te risques yi nag bëri na ndax li ñu wër moom yàlla rek xam li ñu wër bu ñu ñaan yàlla mu gaaw dugg ci réew mi waaw nag li koy li koy li koy bloqué mooy ñu taxaw góor góorlu jàppalante joxante loxo lii ñu leen wax ngeen jaar si nekk benn Ah, sëriñ bi ñaanal ñu si jàppale ñu si ak njaboot gi yëpp yàlla wàcce fi gën fi wàccee xéewal ak jàmm ak salaam kon yaakaar naa kàddu yooyu rek moo doon kàddu yi tey eh, di la santaat bu baax di la gërëm te di la bëggee chaque fois si ni nga xamante ni noonu ngay tàggatee njaboot gi eh, rawatina fii ci Medina Baye ak ci islam bi islaamu àdduna bi yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf président ci kàddu yooyu nga xam ne nii foo dem rek kàddu yooyu la ñuy xaar te ci jàng ak ci jàngale lii da nga jël journée 28 novembre ne da ko def journée nationale de daara nga daje la sëriñ daara yépp ñi daje fële na le ci centre président Abdou Diouf nga waxtaan ak ñoom ni nga bëgg a doxalee daara sëriñ bi kontaan na ci lool ba léegi moom moo ñuy jàngal ci daara ji loolu doyut nga ne danaa def grand prix chef de l'État pour concours alquran loolu ñun doomi daara yi nga ko defal te alquran bi Sénégal am fii fuñ mën di dem ci àdduna bi sëriñ bi dafa bëgg kontaan ndax fu ñu dem ci àdduna bi danañ am ndam ci alquran it fii nii te loolu nag bu amutoon ndimbal boo xam ne nii suñu kilifa yi ñu ñu koy dimbal résultat boobu am kon dañ lay sant di la gërëm loolu boo ko waxee xam nañ ko daara yi lépp loo def ci ñoom rek kontaan nañ waaye ñi ngi xaar ndol la ndax yàlla moo waxoon hal min mazidin mu ne wala day naa mazid kon ñu jox kàddu gi xalifa bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur le président ak ñu tedd ñi nga àndal yëpp ñëw mérina na fii tey ci bés yi nga xam ne bés yu tedd la ci àddina bi yëpp bés yu tedd la fii itam ci Medina mooy bésu xaar juddu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fu nit àgg ci teraanga rek ci yonent Yàlla Muhammad mooy buntu boobu teraanga googu yàlla may ñu ci barke yonent Yàlla ci barkeeb yonent Yàlla Muhammad noo ngi ñaan yàlla yal yàlla saxal ko fii ci senegal waaye yal na ko yàlla saxal ci àddina bi yëpp itam ñëw nga ñu ngi lay kon ñu ngi lay ñu ngi lay tatagal ak mbégte ñu ngi lay tatagal ak kontaan gis suñ président de la république man gis suñ président rek doon na may xaaruma yeneen ah gis nañ suñ président ñëw na toog suñ biir kenn ci ñun ñu ñu yëg ko mu yëg ñu ñu xam nag fi ñu faree comme ni ko Mahi Cissé waxee boo gisee président dangay foog ne lu yomb la mais lu jafe la xam naa ku manqué nelaw la ku manqué lekk la ku manqué jot la ku bari bopp buy métti la xam naa sax léeg-léeg euh, loolu yëpp mu def ko pour dimbale sole réewam ci ay coono indil ko ci loo xam ne moo gën a yomb te dëgg-dëgg yomb yomb boobu gis nañ ko ci lu baree baree bari ci senegal te loolu yëpp sa taxawaay da sa liggéey la boo ñëwee wax ne dañuy tàggu vraiment nous parce que dañoo bëggoon nga toog ak ñun rek waaye yàlla mi la may teranga nga nekk fii nga nekk teranga boobu yàlla bu mu dagg yàlla yàlla continuer terangaam ci yow nga nekk Sénégal nga nekk Fatick sa kër ak nga nekk ci bopp Sénégal yëpp yàlla la yàlla sàngee mbubu teranga ak mbubu yiw ak mbubu sutura ak mbubu sàmm ndax buñ la ko def buñ la ko ñaanalee jaral nga ñu ko

dëgg-dëgg war nañ ko jàng jàng jàng bu baax a baax mooy message yu bi buñ ko jàngatoon bu baax baax du mën a ba fii xale yi di ko mokkal di Sénégal yëpp di ko tari di ko Sénégal dëgg-dëgg ñu naan ñaari sëriñ si la waaye alxuraan ndax as Sénégal bokk na ci ñeenti pays yi nga xam ne ñoo raw ci àddina bi ci alxuraan loolu teranga la te ba léegi ñu ngi bëgg alxuraan ñu koy fonko da ngay tukki ci àll bi guddi gis ay xale ba léegi ñu ngi toog di taxani di taal pour mën a jàng alxuraan ci seen ci seen ci seen dëkk. bon fonk boobu Sénégal fonk alxuraan bëgg boobu euh, ya Sénégal bëgg alxuraan ala fokk dina ànd ak mbootu yàlla ak mbootu euh, alxuraan yàlla sàmm ñu ci barke alxuraan ak mbootu alxuraan. ak barke suñu sëriñ si nga xam ne itam dëgg-dëgg ñaan nañ góorgóorlu nañ def nañ lu baax pour ñu nekk peuple bu kawe peuple bu civilisé peuple bu xam peuple bu mën a jëfandikoo ak àddina bi yëpp bu mën a jëflante ak àddina bi yëpp te dëgg-dëgg gis nañ ko ci monsieur le président euh, foo dem rek dafay mel ni foofu nga dëkk dinaa wax gars yi mën a président ku ko bëgg bañ bul toog ak moom boo toog ak moom rek di ko bëgg parce que am na am na jikkoo am na jikkoo nekk ak yow comme ni nga nekkee ah waxtaan ak yow ree ak yow maa ngi koy euh, nettali suma benn soxna mu ne man ak Madi bu ngeen ne pipe ma tëj leen ma ne ko ndax lan mu ne parce que ñoo fallu ma nettali ko président mu ne ko ah Fatmata loolu ëpp na di ah bon <laughs> nag euh, sëñëw fii ci bés yu sell yi tànk yu rafet yi ak yéene bi nga yéene Sénégal bëggal ko ko yàlla na ko yàlla dëggal te yàlla na ko Sénégalais yi dégg yàlla Sénégalais yi xam ne ku la yàlla jiitalal

def leen nii mooy dëgg bu ngeen deful nii da ngeen di def nii bu ngeen defee bu ngeen defee nii dootul mën a téye dara ah bon nag yàlla yàlla dimbali leen ngeen àgg ci loolu ngeen àgg ci sàmm seen bopp ngeen àgg ci sàmm ne APR Sénégal miin na ko ci àtteem ci doxalam ba bëgg na ko ba yëg na ko donc loolu bu leen ko xañ seen bopp ci xëccoo yu ko jarul yal na yàlla dimbale leen ñu ngi gërëm président bu baax a baax waaye ñu ngi am métit aussi ndax nee nga dama leen di tàggu dem euh, bu ñu sañoon da nga fiy toog rek ah wante yal na yàlla sàmm la yal yàlla sàmm la euh, jàmmal la may la dal may la lépp loo xam ne soxla nga ko soxlaal ko sa peuple yal la ko yàlla defal dinaa la boole ak sama premier ministre di nag parce que dañoo wax ne jox na ma ay am malette. Taman ke semua kan nama dia. Jadi Jeff Michel Fariz nanti setia way. Ya Allah ya Allah mela berke. Gamu gi agbar kewa gamu yep. Insya Allah. Duin duin duin bilai nyana waktu unek. Insya Allah. Jadi Assalamualaikum. Gana Abu Sering bawa kenyang ring mau cewa rasegu. Ayah presiden anda ngah amci sanjabot hamne cikir gile